bu mag bi gaay yi jub waajal ko jot na sëkk ndax moom yegg si bisub sëriñ bu mag bi gaay yi jub waajal ko jot kër ga nga jóge yow moo ko jóge yaa gën ci dëkk yaa gën ci dëkk kër ga nga jóge néew ba nga jóge yow bokk yaa gën ci néew daal di man damaa fekk la Serigne Touba tànn ca yonent ba ba ca ko ne ma dem tànn ca loo ne indi moo yéen daal di ne ëpp leen yéefi leen ñu du ngeen ëppoon da ngeen dikk ci ba Serigne bu ngeen yee suñu sëriñ bi lay dikk ba dem ji bu leen jëriñ ci góor bi yéen kër yéen moom dara waaye dara dara daal di ne am moom si mën na ko mën mën na ko anakaay mën na ko mën mu doon nekk seen tuur yu tàkk yi ak climat bi ak naaju tàng bi ak àll bi mun a mun a ngir sëñ Tuba mun a mun a ko bokk loolu li ma indil ci ñii sëriñ bi ku taxut bi fóotu mbu mu taxut kenn du ko fóot tey sëñ bi li muy taxawloo suñ ko nit ñi. ay bàyyi yu bëri yëpp ak a neexoon tey ñu jëmul la mbir yi ak a neexoon tey wax ñu jëmul la mbir yi yow ba nga defee sa ñaareelu vidéo boobu Dakar yëngu na de baax Dakar yëngu na lool waaye eh, tey bu ñu leen jébbaloon mbir yi bu ñu leen jébbal ba na mbir kon la nga wax ne jeex na jeex na fa kon nag dundal dañoo bëgg nga dund toog fi ndax xam nañ diggante sa ki ngay jëm ki ngay liggéeyal sa diggante moom kenn doxu kon moom nga des ci barke da lay neex te dañoo bëgg mu neex ndax yaa waaye bul jib bul sonn bul tay léeg-léeg da nga wane ci olo sa saay waaye yooyu mbàkke lu lu nekk ci sa jëmm dana neex loo yëg rek dana kon dundal ji ak loolu de sax loolu daa di ànd ak wér ñun saa su nekk dañuy bëgg gis ngay ànd ak jawante ñun loolu mooy suñu yëg ci yow suñu sañoon bu ñu dégg sëñ sëñ Abdou Karim dafa dafa mel ni ko xaw a sonn déedéet loolu dañ koy saayal rek waaye yow loo bëgg loo bëgg mel ni nag nit ñi mel dañoo bëgg nag mbàkke nga jaay jox nag ndax àggaru allah alquran maa ngi ñëpp si génn bi laay. nee na tey la mos a dégg tànk moom la. nee na tey la gis mos a gis moom li mu tànk. ñëpp si génn bi laay. jotaay bi képp ki nekk ci jotaay bi. di jëm bu baax a baax. di tënk rek tànk. ñun daanaka sax daanaka suñu diggante yow amatul ay wax. dama fekk ne ndigal daal suñu la nga ji jëriñ jëriñ baaxul muy li nga xamante ne mooy diggante mu tomb yi mu wax ne sàkku sa yow sa ñaan si diggante tomb yi ndax nee na saa su nekk rek moom day jaaxle ci ñoom ci maanaam saa su nekk bu demee ba gis ne maanaam jàpp nañu ne ñu bëgg a sonn day mel ni dañoo yeesal pexe. loolee nag feeñ dafa feeñaat ren ci màggal gii te nee na li tax mu jaaxal ci mooy jafe-jafe bi am muy xam-xam bi am ci jàmm. Mbàkke dafay liggéey seen toit seen galas ba tax na Mbàkke dañuy sax nga ñaanal ko moom it yéen bi mu am suñu borom jàppale ko dimbali ko moog seen galas suñu borom sàmm leen te loolu si yow rek nga ko yaakaar ndax yaay seen fan alhamdulilah jërëjëf yàlla Thank you. di nga fekkee déwén laaj la ko bu nu ko laaj di nga fekkee déwén la ko bu nu ko laaj di nga fekkee déwén la ko làmb jeex raf la jeex làmb jeex raf jeex rakkal jeex belee jeex dof si jeex anaawa boo taxaw otir jooy arrêt taxi dem ak moom fàlloo ko waral ma fàllooy borom nit ñi ma fàllooy borom Mbacke Balla maa ngi jégalu at mu ñu ne ñooy waajandoo màggal gi at mu ne ñu jëriñ ñooy waajandoo màggal gi waaye yàlla dimbali na ma jëriñ sax bëgg na maa jot mënu maa jot loolu maa ngi siy jégalu sa yàgg maa bëgg mënu maa jot waaye damay ñaan sëñ damaa dugg ba dëkk boo xam ne gan gi fay dugg naan bu Mbacke Fall Dakar dof may duggati sama Natal. ndax lu yàgg lu ne dëgg ñu jëriñ ak làmb nga yore benn daara daara amul woon kon yéen ak sëñ bi du tey ndeyu mbër nag dañ koy ñaanal mu gudd fan kon jëwriñ yàlla na ngeen gudd fan bàllaay sax buñ ko ñaanal dara moom xam ne lépp moom moom bu ko neexee dina fi yàgg te dafa yàgg day wér parce que Cheikhul Khadim dina fi yàgg dana mu ma génn fa dugg Koloña dëkk bu doy waar dem ba Daaru Salaam Kabata ki ko invité ngal wuy juróom foofu la nekk mu gis la tax balay si man man keroog bu ñu jéem a yëg ma ne ko kii moo ñu suñu yaakaar suñu lépp adduna bi laaxal li nataal bi démb la kon maa ngi naan mbàkke ba ak Gàmbi ñëpp a ngay xam waaye yow fooy dem wàññi nga sa démb ak sa tey dañuy ñaan nga téenu mooy di sa bàyyi doon wax léegi bu mag bi gaay yi jub si na waajal ko jot na sëkk ndax moom yegg si na bisub sëriñ bu mag bi gaay yi jub si na waajal ko